أذكر si guddi yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne cant ak ñeel na borom bi ne lii yàlla na yàgg suñu diggante ak yéen ne teraanga bi suñu borom jël dëxañ ko jox ko Sénégal mu ne loolul yàlla na yàgg si ñun mu ne ñu baax bari nañu lool te suñu borom tamit baaxe leen lool si àddina ji waaye borom bi tabaaraka wa taala fàttewul senegal soo demee ca kanam ca penku nga gis Cheikh Umar soo xoolee sa ndeyjoor nga gis Cheikhul Khadim nga gis sa càmmoñ nga gis Seydi Alaj Malik Si radiyallahu taala anhum nga gis sa gannaaw Cheikh Abdallahi Niass ca Kaolack sëriñ bi nee nga gis lu bari lu bari lu bari lu bari mu ne alhamdulilah cant ngërëm ñeel na borom bi ne suñu borom tabaraka wa taala fàttewul senegal alhamdulilahi mu ne yàlla nañu yàlla may seeni barke yàlla nañu borom bi tabaraka wa taala may seeni barke ne sant nañu borom bi sant nañu yonent bi sallallahu alayhi wa ne am nañu ay mag ñu baax ñu mel ni ñi mu lim léegi mu cité leen ñu ngi jokk si ñoom di leen topp ne dara manqué wul si suñu mbir ne yéen ñëpp jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ne sëñ Muntaqa Basiru Mbàkke moom tamit moom tamit jërëjëf ne lépp moom moo ko dekkalaat ne dara deewul woon waaye ca njàmbaaram ca taxawaayam lépp moo ko dekkalaat yàlla na ko yàlla fay ci gën ci fay yéen ñëpp yàlla na leen yàlla fay ci gën ci fay jërë ngeen jëf mu ne kontaan na lool si gis seen xar kanam yu tedd yi mu ne alhamdulilah yàlla na yàlla barkeel jërë ngeen jëf bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidi almursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man ihtada bi hadiyihi ila yawmi ddiini rabbil aalamiin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu salaamun kawaadil miski bissaqi rayyaani ala sayyidi l ustaasi Ceerno Madani salaamun kawaadil miski bissaqi rayyaani ala sayyidi l ustaasi Ceerno Madani يعم على الأرجاء نشرا معطرا ويزري من الحسن الغواني الحساني يعم على الأرجاء نشرا معطرا ويزري من الحسن الغواني الحساني يزف من الشيق المفضل منتقى حفيد الخديم الخير قيد عياني yuzaffu min alcheikh almufaddali muntaqa xafidi alxadimi alxayri qaydi iyaani ila usratin ahli alzawaaya wa zudadin wa ilmin wa irshaadin wa cadbi bayaani ila usratin ahli alzawaaya wa sudadin wa ilmin wa irshaadin wa cadbi bayaanin ilaykum tahaani ciidi mawlidi xayri man ala qadamin yamshi bi kulli zamanin ilaykum tahaani ciidi mawlidi xayri man ala qadamin yamshi bi kulli zamanin yuakkidu xabla alwuddi qad taala wasluhu wa ma zaala xatta alaana fi dawaranin yuakkidu xabla alwuddi qad taala wasluhu وما زال حتى الآن في دوراني وتربط بين الأسرتين علاقة من الدين بعد الطين يستويان وتربط بين الأسرتين علاقة من الدين بعد الطين يستويان على خير مبحوث على الخلق رحمة سلاما رحيم جل والرحمن جل مويلان تهالبولار galle gille gilli gilli wicces ngeen njeego njeego ko juróom benn maanan saxlaan fan salaxa laxraaf fa idan salaxa baraan mm-hmm. fa yansaxu laahu nga hajji naslaxu jaal muy yaasin nastansixu ca jaasiyati ko juróom benn xayra tongu naayo <laughs> xayra tongu naayo fa kula i fa inna xayra laan kuntum xayra gàllaay laa xayraa nga jigéen inna xayra xasas xayra gudul boobu rek ngañ lay doon dootu tung xar nga njag raa njeego xarfatan laan wala xarbiyatin nuur bi jaani bil xarbiya nga xasas xarxan ca naasiaat ko xar fa daaratum laan saddaakum naar xata hmm. ida daaraku al araab saddaakum ñuuleen balit daaraka namli saddaakum naar lawla anta daarakahoo ca xale bi naar laa ko jam-jam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu kullu taqiyin wa jaddu kullu taqiyin wa jaddu kullu alimin faha nahnu alyawma eh, jiddu masruyin bi hadihi ziyara almaymuna ziyaratukum li khadimi alhadrati alumariya hafidu ala jofud jitum min eh, xaadimil umma ana aqulu cheikh Mahamad Bamba xaadimu rasul wa xaadimul umma fa qulna antumul kurama fa chiimatukum alkarama ayuha alkurama inna alkaramata fiikum min alkarim inna alkaramata fiikum min alkarim marhaban bikum fi baytikum fa inna jadduna cheikh Ahmad Bamba huwa naxanu naftaxiru bihi naftaxi bihi kul alfaxur wala kul alfaxr li annahu raayna al alaqa almatina allati tarabul waliduhu aw walidahi bi jaddina sharaftina wa taala la nansa abadan la nansa abadan murura jaddina fii bawol والعلاقة المتينة والدعاء المستجاب لجدتنا مام جارة بوسو ودائما نتذكر نتذكر نتذكر ذلك ونسمع ذلك ونفتخر بذلك فنرحب بكم لهذه الليلة المباركة ليلة أو في هذا الشهر ربيع الأول شهر سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فهذه زيارة زيارة تاريخية لقد تعودتم بزيارة الشيخ في في هذه الأيام الميمونة ونحن نفتخر بذلك ونشكركم على ذلك ونتمنى لكم عودة ميمونة ونحيي ونشكر ونزور خليفتنا شيخنا شيخ منتقى منتقى هو منتقى هذا المنتقى هو المنتقى انتقاه رب الورى فالمنتقى انتقاه رب الورى لخدمة خير الورى جزاه الله خيرا جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا مرحبا بكم في داركم مرحبا بكم في بيتكم مرحبا بكم في دار الأمر رضي الله تعالى عنه شكرا لكم أعوذ بالله من ميلي لغير رضا ومن سدودي عما سن أو فرضا بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده نزلا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا sëriñ Thierno Madani noo ngi lay nuyu ci turu sëriñ Abdou Samad Mbacke mi nga xam ne moom la sëriñ Mountakha tànn mu ñëw fii ndokkeel si leen ci bis bu màgg bi nga xam ne moom lañ jub di guddi gu màgg gi nga xam ne ci la umma islaamiya bépp di fàttaliku ki gën ci mbindéef fi sallallahu alayhi wa muy ndaw loo xam ne nag niñ koy waxee yor na darajay ka ko yónnee yor na ko ci fasaaxa bu leer yor na ko ci ci fànn yëpp rek muy koo xam ne miin ngeen ko ci seen jataay yi ni nga ko waxee léegi sëriñ bi doyloo gum ko doyloo moo tax ni nga ko waxee ñëw na daaw ñëw na ren ñuy ñaan nag mu yàgg ñëw lool te sëñ bi yàgg ko yónni lool incha allah kon ñu ngi lay jox nuyoob sëriñ Abdou Samad bi nga xam ne moom la jëlee ca magam ju baax ja Cheikh Mahamadul Muntaqa yàlla na fi yàgg lool te wér ngeen bokk fi yàgg yéen ñëpp di liggéeyal lislaam sëriñ Abdou Samad nee na tànk yi tànk yi muy dox nag mooy tànk ya nga xam ne moom la seen maam ju baax ja Cheikh Omar dox si woon ba mu ñëwee Bawal ba junj fa dikkuk Cheikhul Xadim nga xam ne sëriñ Touba ak feeñam jamono seen maam bokk na ci ñi ko njëkk a junj xamal ñu ne daal dina am koo xam ne bu ñëwee moom koy xettali jamono lay doon joxe cay màndarga yoo xam ne bi Cheikhul Xadim feeñe xam nañ ne kii la Cheikh Omar Fouti yi doon junj te ku dem ca wala falub Cheikh Moussa Ka di nga ko ca gis mu leeral ko ca. kon tànk yooya Cheikh Omar defoon ba agsi Bawol moom rek la njabootuk Serigne Touba gii def ba agsi fii di leen ndokkeel nag ci guddik sallallahu alayhi wa sallam gii nga xam ne kenn ëpp leen ci cër seenub cër ci lislaam fii ci réew mi ku ne xam na ko seenub cërit ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Omar liggéey ci liggéey bu am solo ci xamal ñu kan mooy sayduna muhammad ak nan lañ ko war a jàppee ak fan lañ ko war a teg ak nan la ko jullit ñi war a ban considération lañ ko war a jox kon loola nag mu dem moom it bàyyil ko fi ay donoom ñu di ko wéyal di ko wéyal diggante Touba ak seen kër gi nga xam ne kër gu tedd la kër gu barkeel la di kër goo xam ne balluwaayub lu baax la ci liggéey boobu nga xam ne seen maam moo ko liggéey kon tànk yooyu rek lay ñëw di leen ndokkeel si ci guddi gi nga xam ne moom la ñu jub di sàkku it ngeen ñaanal ko te ñaanal ki nga xam ne mooy kilifaam nga nga xam ne moom la bàyyi nga xam ne liggéeyal lislaam rek mooy yitteem doon Cheikhul Khadim ci wet yëpp di liggéeyal umma islamiya di liggéeyal sëriñ bi ngeen ñaan liggéey bi gën a yàgg lool te ànd ko yéen lool. kon daal kàddu yooyu laa doon jottali ci tuuru sëriñ Abdou Samad Mbacke mii nga xam ne ndawul sëriñ Mountakha la kon ah, kon li ci sëriñ bi dolli ci ndigalul sëriñ Mountakha ba tey sëriñ Abo Sall mii nga xam ne. moom it at yi yëpp saayu yu jataay bi amee ci loxoom lay jaar nga xam ne Thierno wax na ko léegi nee na sëñ Abo mooy seen bunt ca Touba sëñ Abdou Samad it ko ne moomit sunu bunt fii mooy sëriñ Abo te loolu kii fii sëriñ Touba moo ko tànn kon sëriñ baa ngi sant bu baax sëriñ Abo Sall mi ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal moom it jéego yi muy def te lislaam ak lu baax rek tax sunu borom fay ko ci lu kawe njortam mu yàgg mu yàgg jiite moom tamit di xàll yoon wi. waaw ok kon Serigne Abdou Samad ci tuuru sëñ Muntaxa ba tey mi ngi koy sant bu baax ci taxawaayam bu am solo bii nga xam ne mi ngi koy def ci yoon wi di ko defit ci mbokk yi muy taxawaay boo xam ne lu mënutoon a ñàkk la ndax bi mu ko defee rek gis nañ njariñ li nga xam ne moo ci feeñ. kon loolu lañ loolu mooy wanee ne kon bu ko toon dina am lu manqué loolu nag sëñ Abo sëriñ baak la ciy sant te di la ñaanal bu baax nga gën a wér te gën koo tal te gën koo man at yu baree baree bari ci barkeb sëriñ bi ak ci barkeb Cheikh Omar mi nga xam ne moom la ñu nekk fii ci ëttam wasalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne mboolem ñi nga xamante ne ñoo wuutu sëriñ bi si kàddu ji mboolem ñu wuutu sëriñ bi si kàddu bi yéen ñëpp jërë ngeen jëf mboole mi ñu gunge sëriñ bi ba mu agsi fii yéen tamit jërë ngeen jëf ne kóolute bi yàlla na gën a dëgër yàlla na gën a yàgg ne xalifa bi sëñ Muntaqa Basiru Mbàkke kóolute bu mu am si yow yal na yàgg seeni diggante alaji abou sall gamal goto benn buntu la amoon waaye tey am na ñaari buntu kanko nekkoon buntu xalifa bi ca touba ah, seydi abdou samad wi mooy buntu touba fii alhamdulillahi ne doonte waxuñu ko woon loolu luñu ñu xamoon la sallallahu alayhi woon yonte bi sallallahu alayhi wa lim leen xamal borom bi mooy borom hatta du tere borom bi borom la waaye fokk làmmin daal si jaar ne jërë ngeen jëf ki leen yebal waat yónni leen xalifa bi moom tamit jërëjëf yàlla nañu borom bi tabaraka may ñu fekkee waa nagandi déwén mu ne ni ko woykat arab bi waxee léegi mm, guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. na nga dikkaat na nga pas-pas yal na yàlla yeesal suñuy mbir yëpp ne sëriñ bi yal na ko yàlla yàggal suñu kanam ñun ñëpp ne téere bi ngeen ko indil di hadiya salawaatu ala nabi alayhi wa saa yoo ko jotee baax na waaye soo amee si guddi ju tedd mu ne loolu mandarga bu fës la mandarga bu baax la ki nga xamante ne moo ko taalif ak ko taalif si moom yàlla nañu yàlla may seeni barke ñoom ñëpp اللهم صل على سيدنا ومولانا ونور قلوبنا وأبداننا محمد الوافي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني وفاء bi kulli hmm. ah, mu ne bu mu xoole téere bi léegi mu daal di li nekk si biir salaatu bu mu wax léegi salaatu boobu moom la daj mu ne salaatu boobu nag ñu ngi siy barkeelu hmm, ne xasiida bi ngeen fi wax léegi mu ne arab bu set wicc la dina am ku juddu gane si àddina ndeyam baayam mu nekk arab fekk munul def xasiida bu mel ni moo tax sëriñ bi si waxam si njëlbeen moom xalifa bi mu ne Sénégal suñu borom sédd na ko si yu baax yu bari mm-hmm. mu ne te mbind mbiiwaat mbind mi sëriñ Abdou Samad daal di bind mu ne mbind bi xaddu jamil جدا ne li ngeen fi wax léegi ngeen rotal ko li sey Cheikh Ahmadou Bamba wax si Cheikh Omarul Fuuti mais lan lay feeñal day feeñal Cheikh Ahmadou Bamba li mu jox boppam Cheikh Omar ak lu mu dëggal tamit Cheikh Omar li mu wax si moom ne dafa dëggël li Cheikh Oumar waxoon si moom laata muy ñëw si àddina ne Cheikh Ahmad Bamba reconnaître bu mu reconnaître Cheikh Oumar oh, mu ne loolu feeñ na si xasiida bii ngeen wax léegi cheikh ahmad bamba radiallahu taala anhu moo wax bayti yi e diggante doomi aadama ak boromam hakkunde e sa diggante ak sa jaamu yàlla yi ngay def so poɗɗa ak naka nga war a jaamoo borom bi e ak melokaan bi nga war a mel sooy jaamu borom bi Ahmad Bamba wax na mu ne moom Cheikh Ahmad Bamba mu ne sooy julli defal ni Cheikh Oumar melokaan bi mu wax kii julli ni mu war a mel irrade neɗɗo ha ga kala soɗon soɗon nit ki nga ne ko nit sooy jaamu yàlla ni Cheikh Oumar ni mu waxee ni ñu war a jaamoo yàlla nga reconnaître loolu nga wax na nga xool si loolu ƴeewe no ni xool ni muy def ngeen defee ko noonu alhamdulillahi mu ne cant ak ngërëm ñeel borom bi ka qawli ka qawli oumar mu ne man bittuqa wal ilmi qad ta'azzara mm. mm-hmm. <laughs> mu ne nekk na ay mbiram ka qawli oumar mu ngi mel ni kàddu cheikh umarul fuuti radiyallahu taala no kooku ni mu waxoon moom Cheikh Oumar si téeréem bu mu duppee rima ni mu waxoon melokaan kuy julli melokaan bu mu war a amee mu jublu si boromam Cheikh Oumar ma nga xamante ne ki nga xamante ne ragalu yàlla ne saa yu ne da ngay taxawal sa baar ngay xool li ñuy jëf nga xool leen nga fàttaliku leen doomi aadama yëpp benn lañu doomu aadama yëpp si yonti yàlla aadam la ñu jógee yonti yàlla aadam mu ngi bàyyee ko si ban waaye inna akramakum indallahi atkaakum ki gën si yéen mooy ki gën ragal yàlla sëñ bi nee na jërë ngeen jëf sax Abdou Samad mu sirran